wa comme ni ngeen ko gisee rek ni ngi ko waxee rek saa su nekk ñuy ànd ak la Thiès TV dem ci suñu jigéen suñu jigéenu jàmbaar suñu jigéen yi nga xam ne dóor waar rek la ñu xam macha allah am jom gëm seen bopp tey mois de mars bi nag ñu jug la premier sol na daal ma ànd ak sama caméra bu ñaaw bii di Seydou macha allah dem seeti sama nawlu jigéen ñi jàmbaar yi ñu sargal leen nee naa la tey nag bisu sargalante la mois de mars at bi yëpp mënuñ cee sargal jigéen dañoo tànn rek weer bi muy mois de mars ñu ci sargal jigéen ñi ndax jigéen nag nee naa la at doyul ci moom ñaari at doyul ci moom ba tax nag tey ma déplacé wu ñëw seet si macha ma sœur de valeur sama xaritu xol bii macha allah ku am jom kii muy ajarama ajarama nag yaakaar naa ni fii ci Cité Lamy jëm Cité kenn du ko laajte mooy jaay yu baax yi jigéen bi am jom jigéen bi am valeur ajarama tey ñëwoon seet si la macha allah. madame ça va def mbaa yaa am jàmm. ñoo ngi am jàmm sànq alhamdulilah macha allah man dama toog sànq rek nga woo mhm. ni ma dama laa bëgg a boole si ñi nga xam ne dañu leen mhm. te man a ragal ay caméra ak filmé yooyu. dëgg la waaye xam nga si nit moom bu la boolee si bisam rek. dëgg la doo xam noo koy def ndax lépp cofeel la. dëgg la fii nag euh, cër xéewal la. Mhm. macha allah cër xéewal la ko sama góor gi baax gi tuddee. Mhm. yal na yàlla guddoon fanam. may ko wér. ndax dañ ne doolay saxaar raay. waaye doolay jigéen góor. kon moom ma jàppale moom ma dooreel muy El moo jot Diop sama borom kër bu baax bi te ñaawut macha allah. téere xéewal nag moom dañuy mhm. jaay ñun bagage yëpp dañuy faral di jaay macha allah macha allah dañuy mhm. jaay ay meuble mhm. yu jëm si décoration kër dañuy jaay ay vaisselle euh, tissu nag moom defe naa moom macha allah fi lañ ko ñëpp xamee moom fi lañ fekk baax en gros ak demi gros détail lépp lañuy jaay di jaay prix yu yomb tamit di jaay rafet tamit di jaay raar macha allah comme ni ñu ko waxee kii mooy Aji Rama ñu fekk fi nag doomu ndayam mu dend ak moom macha allah sañ sa sañ bu rafet gi macha allah nee naa la man kër Aji Rama bu ma fii ñëw xam nga ni Seydou fa ma jéem ndax nag macha allah ki nga xam ne mooy jaay sañ si rafet ci Thiès moom laa seet si kon Aji Rama looy wax sa moromu jigéen ñi. xanaa ñun ñëpp rek ñu góorgóor li may wax toujours rek. Mm-hmm. ñu góor góorgóorlu si liggéey bi mhm. gën a sellal mhm. xam nga liggéey moom daanaka boo si nekkee mhm. te doo si fen doo si wax lu amut te doo si wax loo xam ne naka sàgg noonu la ba pare di góorgóorlu pour njaboot gi ak ñëpp képp ku si xaj yàlla dalay jàppale toujours macha allah cër xéewal daal ngi nii xale yu baax tamit fi nekk dañuy di di ma jàppale muy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi bëgg ma def ma doom yoo xam ne dañ maa bëgg ba dañ maa rus yàlla xam na ko waaw Adji Rama kon tey koy sargal ci mois de mars bii ñan ngay sargal sa xarit yi sa cliente yi macha allah ko bëgg a sargal rek sargal ko ndax nee naa la Thiès TV fekk si la sa kër fekk si la sa diwaan du yomb te yow mm. ajarama tey da nga koo am ndax sa njom sa ngor mm-hmm. sa jom sa njàmbaarte moo la ko may kon koo bëgg a sargal micro baa ngi ni sargalal ba doyal loo neex defal waaw su ma sante yàlla jul si boo ne comme ni ma la ko waxee sànq sama xol dafa tooy dafa dem sama yaay mm-hmm. sama yaay daf ma nekk caatam yàlla na ko yàlla xaaral àjjana. amiin amiin ndax uh, lépp si moom laa ko xamee. si mm-hmm. lépp si moom laa ko jàngee. Mm-hmm. muy jigéenu jàmbaar. Mm-hmm. jigéenu bañkat. jigéen joo xam ne si macha allah roykaay la. si loolu si laa xamee jàngee commerce. yàlla na ko yàlla defal. yàq sedd suuf sedd si kawam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sargal nag sama client yi di sargal sama cliente di sargal ñëpp di sargal xale yi may liggéeyal man daal allah macha xol bee tooy kontaan na macha allah ajara ma nag bu sargal nga wax yaay macha allah ñu koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana firdawsi suñu yaay jooju macha ci ndey maane la dama ko daan fekk ku baaxoon ku ñëpp xamoon ku disponible macha allah vraiment sa cliente man fii daan fekkanteeg moom kon ñu koy ñaanal kon ajara ma nañ kontaan nañu macha allah di sargal di sargalaat di sargal ba sa xol sedd bu ñu bàyyi merci